alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala hada al amin sayiduna wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa radiya allahu an barzaqi almaktum alxayb taaju alaarifina wa imaamu alawliyaai sayiduna wa mawlana cheikh ahmad ibnu muhammad atijani sharif radiya allahu taala anhu assalaamu aleykum ñi ngi dellu ci waat di ziyaara mbokk yu tedd yépp te di leen ndokkeel ci waxtu bu tedd bi di waxtu aljumaa dellu si di sant yàlla moom mi nga xam ni moonu may nu fekke may nu nu tal waaye dellu si di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi nga xam ni moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nga xam ni lépp loo xam ni day dellu ci ngëneel walla muy dellu ci yiw ci dënnu yonent bi ca la ko yàlla def te itam ci topp yonent bi mooy tax jullit bi mën ci jëriñu su ko defee moom yonent bi yàlla jox ko mission universelle waaye itam jox ko livre bi nga xam ni ci lay appuyé pour mën a jëriñ àdduna waaye aussi mën a jëriñ xeetam te mu di alquran moo tax boo seetloo discours yi mu mës a yépp moom yonent bi boo ca déglu rekk dangay ngay dégg ni dafay dellu ci discours boo xam ni ñett lay jëriñe bi ci jiitu mooy boo ko dégloo dana la jàngal moom yonent bi ni yàlla amul dendandoo waaye itam dina la jàngal ni yàlla ku wéet la ci nguuram waaye dina fexe it ba discours boobu la nga cay jële mooy gën a ragal yàlla gën a ragal yàlla li yàlla wax ni taqullaha xaqa tuqaatihi maanaam li mu wax ni nanga nga ragal yàlla te moom alquran wax ko waaye mu ni dëggi dëggi ragal yonent bi discours su noppee loolu nga cay jële mooy gën a ragal yàlla beneen bi mooy bu teniree ba pare la muy yokk ci xoolu doomu aadama bi mooy mu gën a wóolu borom am ni dara nekk fi lu dul yàlla mu gën a wóolu boromam mooy mu gën a am confiance ci boppam ndax am confiance ci sa bopp bokk na ci nga am ni am na buur bu la bind am lum la sant am lum la tere kon yonent bi discours dafay réconforter xoolu jullit yi dafay réconforter xolu jullit yi su ko defee réconfort boobu nag nga xam ni moom la jullit yépp soxla moom la ko alquran doon wax ba mu waxee inna fataxnaa lak fatxan mubinan li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka allahu nasran azizan kooku fa la réconfort yam parce que balaa sa xel di dal ànd ak sa xol mooy nga xam yéene bi yàlla am ci yow waaw te yonent bi la mu daan jàngale mooy nee na bi yàlla am ci jaamam mooy yàlla wax jaamam ni ko boo ma doyloowee danaa la jéggal waaw boo ma doyloowee danaa la jéggal lan laa la jéggal mooy say manquement waaw kon yàlla reconnaître na ni jaam bi am na ay manquement waaye moom yàlla it mu reconnaître ni nekk fi rek pour manquement bu nekk mu ni eh, yar bi laaj yi teg waaye du fi nekk pour manquement bu nekk mu mën ko ko jéggal lu am solo ndax loolu dana la dimbali ba nga xàmme ni eh, la ñoo tuddee eh, l'homme parfait nga xam ni nekkul lu yomb xëy rek mot nekkul lu yomb waaw nga xam ni kon ndeke eh, ki motul loolu doonul sanction ci moom waaye dafa doon loo xam ni dafa war a yokk volontaire waaw boo motul tekkiwul ni dañ la sanctionné waaw mais li muy tekki mooy dañ lay xiir ci nga yokk sa volonté waaw mooy nan ngay def ba say manquement yi benn bu ca nekk nga fexe ba défaut yi nga koy def qualité waaw yàlla ni maa ngi nag ci booy jéem rek ma jéggal yonent bi discours am dafay indi réconfort beneen bi discours di apporter it mooy discours dafay apporter jullit bi xam lan mooy objectif xam nga objectifu jullit bi du rek dem aljana waaw wala bañ a dem safara objectifu jullit bi mooy mu tegu ci siraatal mustaqim te du ko wàcce loolu mooy objectif u mooy mu tegu ci siraatal mustaqim te du ko wàcce waaw ko defee ñu xam ni kat lañ daan ñaan yàlla nangul na la ndax ya janoog moom wax ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin ni kon lañ daan ñaan léegi yàlla nangul na la ko loolooy doon objectif u mooy mu tegu ci siraatal mustaqim te du ko wàcce léegi nag mu am bés Ababacar laaj ko moom yonent bi li jëm ca la tuddee natt mu laaj ko li jëm ca la ñu tuddee natt waaye yonent bi ci philosophie mu jàngal ka lan mooy nattu ndax xëyul rek ni ko nattu mooy nàngam ak nàngam déedéet bi ko Ababacar laajee li jëm ci nattu yonent bi dafa ni ko dèjà nattu moom mu ni ko ki muy dal mooy muminuuna xàqan bi waaw muminuuna xàqan bu ñu ko waxee mooy koo xam ni am na imaan imaanam dëggu na ci moom gëm na yàlla c'est un vrai croyant waaw yonent bi wax Ababacar ni ko ki nattu di dal nag mu ni ko mooy ki gëm yàlla ba deseetul dara waaw ca ngëm nga ki nga xam ni imaanam lu dëgër la lu wóor la kooku la nattu di dal kon boobu philosophie bi yonent bi utilisé lam ko bëggoon jàngal mooy ni lanoo tuddi ni jullit faw dundam ànd ak ay natt waaye nattu yi dañu wute xam nga li nu sant jullit bi mu fexe dindi ko ci boppam pour di jéem atteindre objectif ci wàllu spiritualité mooy bu amee ay défaut loolu la ñu sant jullit ni défaut yi na fexe mu wëlbati ko di ci jéem di ko dindi benn par benn ba défaut yi dañ nekk ay qualité waaw waaye kenn waxul jullit bi ni ko forcément dafa war a dindi nattoom déedéet waaw lu jar di xàmme lu jar di xàmme waaw dañu ne jullit bi na fexe bu amee défaut waaw mu fexe ba dimbali rooxam dimbali bakkanam daj lu nekk ca défaut yi pour ñu daj ba nekk ay qualité waaye waxuñu nag jullit bi ni ko forcément. na dindi nattoom parce que nattu bi moo ko ëpp doole moom nattu bi yàlla moo ko ko nattu bi yàlla moo ko ko teg xam nga foofu philosophiquement nit mën na laaj ni kon xanaa défaut yi moo ko def ci boppam ma ni déedéet wax naa ci début bi ni léegi ni nit motul kon suñ ne jiw motul rek kon am na défaut yu nekk ci moom ndax défaut yi moo tax mënul mot mais défaut yooyu yàlla dafa indi alquran indi kàddu lumière yi indi yeete yi indi zikr yi pour yooyu dindi défaut yi waaw ba défaut dootul nekkati ci doomu aadama bi waaye ci place su défaut yi dañ koy remplacer ak ay qualité mais nattu bi nag alquran sax dafa wane ni nattu dafay am wane ko ci prophètes yi wane ko ci awliya yi waaw wane ko ci ñu ñu tuddee les élus d'Allah wane ko ci les prophètes wane ko ci jullit yi wane ko ci ña ñoo tuddee muminuuna xàqan waaw ñu ni kon waxuñu ko forcément ni ko na dindi nattu yi dañ ni na muñ nattu yi te ñaan ci yàlla waaw inna allaha maa sabirin waaw xam nga boo déggee yàlla ni moom ma muñkat yi waaw boo déggee yàlla ni moom ma muñkat yi mooy dafay wax ni gis nga nattu da nga koy muñ ba noppi ànd ceeg di ñaan yàlla mu teggil la waaye waxuñu forcément dafa war a teggee ndax kenn ku nekk ak nattoom kenn ku nekk ak nattoom te wax naa li yonent bi wax Ababacar ca début bi ni ko natt muminuna xaqan lay dal waaw kon gis nga ki jege yàlla forcément mu am ay natt te natt it bokkul waaw kenn ku nekk ak nattoom xoola bu nu jëwee jëlee kaawu sayidina Aliyun waaw bu nu jëlee kaawu sayidina Aliyun xam nga Aliyun lan moo doon nattoo mooy ñàkk Aliyun li doon nattoo mooy ñàkk li ngay dégg Aliyun yëpp dégg kanamam gu leer ga yëpp dégg jàmbaaram ca xare yi yëpp dégg jaaseem ja kenn attanu ko woon yëpp Aliyun amul woon dërëm bu mu denc nattoom la mais est-ce que dafa toogoon bi wax rek ni euh, naa am naa am déedéet daf ko muñ bokk di ñaan yàlla mu may ko sutura waaw dafa muñ nattu bi ba noppi bokk di ñaan yàlla yàlla may ko sutura xam nga bu ko yàlla mayee sutura tekkiwul ni yàlla daf koy may alal mais bu amee sutura dana mën a gën a muñee ñàkk waaw Alioune loolu moo doon natt te xoolu ku ko gën a jege yàlla ku ko gën a baax ku ko gën a leer ba yonent bi sallallahu alayhi wa jël doomam di Fatima may ko ko waaye seetal li doon nattoo mooy ñàkk kon xam nga nattu bokkul ñàkk moo doon nattoom moom léeg-léeg itam nga gis jullit bu tedd mais fekk jullit bu am volonté sax jullit bu am objectif mais fekk lii nattoom mooy feebar nga gis ni ko mu tëdd mënu ko jóg te bu ko jógoon bari na ku nekk ci yoonu yàlla di wax ni am nga volonté moom moo lay ëpp volonté waaye malheureusement la ko euh, gàllankoor mooy ñàkk wér-gi-yaram waaw xam nga kooku ñàkk wér-gi-yaram ba mooy nattu mu ngi koy muñ di wut ay médicament di faj waaye teewul gis nga mu ngeeg imaanam bu dëgër waaye la ñëw am wér mën moom moom mënu ko ñu ni gis nga am na volonté waaye yàlla moo jël nattu nattu feebar teg ko kooku feebar mooy nattoo nga gis ñoo xam ni itam bare na lanoo tuddee seen nattu mooy problème yu bari yu nekk ci seen bopp te xamuñu fañ koy waxe te ci cadre mu'minuna haqqan la ñuy wax de fekk loolu mooy seen nattu ñoom lu nu xëy rek bu ñu concentré wu ci seen méditation concentré wu ci seen julli concentré wu ci seen jaamu yàlla di am objectif problème yi ñëwaat ñu nekk ci sa problème ya di xeex ak moom waaw di xeex ak problème yi te bëgg wéetal yàlla fu ñu toll ñu ni seen nattu la ñu ni seen nattu la nga gis ni lenn lu ci nekk yàlla mën na ko utiliser mu doon nattu doomu aadama bi mën na ko utiliser mu doon nattu doomu aadama bi xam nga dama mës a recevoir benn mbokk ca Dakar dafa naa ci côté 2016 la mu jox ma benn bouteille ni ma nekk ci ñaanal mag la de ma nekk jox ma bouteille ñu wéet mu ni ma dafay bëgg jooy sax léegi ma ni ko lu tax mu ni su ma jëmee ci yàlla su ma jëmee ci yàlla di ko wéetal ba mu leer ni ma maa ngi jëm ci yàlla dëgg tegu ci siraatal mustaqim lii tax ma mooyaat yàlla du ma xam lan xam nga ki dem jël bu téye daj lu nekk pour ñu ñaanal ko ba jooy kese dese ko ni su jëmee ci yàlla fas yéene ko wéetal moom dong buy xëy di mooy yàlla du xam sax lu ko dal kooku xam nga ni fa la nattu ya kooku fa la nattu ya waaye ma jox ko benn baat ma ni ko li tane du rek euh, wax ni nan la ñaanal ñu ñaanal ñu déedéet da ngay di jéggalu yàlla ma ni ko ndax yàlla xam na ko am yéene ci ci moom te bu xamee ni moom yàlla ni am nga yéene ci moom am nga yéene ci wéetal ko am nga yéene ci doo ko bokkaal am nga yéene ci tegu ci siraatal mustaqim moom mu am yéene ci yow te bés bu amee yéene ci yow daf lay defar waaw daf lay defar ba dootoo wàcc siraatal mustaqim waaw pour wax la ci wax day mooy yàlla te xamul lu ko koy moyloo waaw te gënalu ko te jooy tax la cay jël kooku nattoom la kooku nattoom la yàlla moo ko éprouvé ci côté boobu waaw ndax yàlla nee na nag sama jaam yi man maa leen moom kenn ku ca nekk maa xam lan lay utiliser mu doon sa nattu waaw moo tax ñu ni looy def te bëgguloo ko mu naqadi la te bis bu xëy yaa ngi koy tiit ci sa diggante gi yàlla pour yàlla jéggal la ba dootoo xoolee ci loolu ñu ni loolu sa nattu la waaw ñu ni nag sa nattu mënoo ko déjjati forcément ku mën déjjati nattoom kay dootul doon nattu ci ma li ngay mën ñu ni mooy di jàngu yàlla di ko ñaan di ko ñaan mu saafaraal la loolu bu dee jàngoral walla mu teggil la ko walla mu yërëm la ba dootula la toppati ci loolu waaw lu am solo la lu am solo la ndax euh, soo xammee sa nattu rek nee ñu da xam dëgg-dëgg nan ngay àndeek yàlla soo xammee sa nattu ndax ñu bari liñ dul xam mooy nattu su ñëwee ci doomu aadama bi natt bi moo koy ëpp doole nattu moo lay ëpp doole parce que nattu soo ko ëppee doole teggi ko natt soo ko ëppee doole da koy tegg natt bu ñëwee ci jullit bi natt bi moo koy ëpp doole kon nag comme jullit bi natt bi moo koy ëpp doole moom la muy dese mooy jéem a wéetal boromam ñaan ko pour mu dindil ka lool ndax borom bii moom moo ëpp nattu bi doole ndax moo ko teg waaw borom bi moo bëgg loolu nga jëm ci moom wax ko ni ko danga koy wéetal wax ko ni ko moom rek nga soxla borom bi indi lenn loo xam ni bés bu xëy da ngay di xeex ak moom waaw mën na ko indi muy jukko joo xam ni day nekk ci yow boo sañoon mu daj abadan jukko ji ëpp la doole rek nit nit du daj mu indi feebar boo xam ni xëy na mi yow boo sañoon mu daj abadan feebar ba ëpp la doole nit indi ñàkk boo xam ni boo sañoon am defal ñëpp ñàkk ba xëy nit du daj lenn lu ca nekk yàlla jàpp ni loolu mooy sa nattu waaye mu di la xool ndax di nga koy jéggalu lu bari ak ndax di nga koy tàllal sa loxo di ko ñaan lu bari loolu rek la ci soxla loolu rek la ci soxla moom yàlla léegi nag boo nekkee ci phase boobu nga xam ni yaa ngi nattu yaa ngi jéggalu yàlla pour mu jéggal la défaut yooyu nga xam ni ci sa nattu la bokk yaa ngi ñaan yàlla pour mu teggil la nga gis ni ba léegi dajagu li ci des ñu ni mooy nga muñ la ñu ni li ci des nag ñu ni mooy nga muñ waaw li yeneen ci yàlla ayub ba waxoon waaw la ca des mooy nga muñ li yeneen ci yàlla ayub ba waxee ba ba ko ba ko góom yi dikkalee waaw sax yi nekk ca góom yi bërën ko sonal ko waaw keroog ba mu demee ba sax yi di lekk bay lekkaale bu mu xolam ba mu onkee ñu laaj ko ni ko ah, xanaa da bëgg mu dañ mu ni déedéet dama bëgg tourner ci beneen partie pour ñu lekk leneen la ca des ñu ni ko lu tax mu ni parce que sama nattu la waaw gis nga kooku ñaan na yàlla waaye ma ngay muñ waaw parce xam na ni muñ moo ko koy jële yeneen ci yàlla luut it noonu la yeneen ci yàlla luut noonu la moom itam gis nga ca soxnaam sa ba mu ko sonalee ñëpp dem ba ni ko boo bàyyiwul sa soxna si ñun sunu bopp ñu bàyyi la waaw mu ni kon di ngeen ma bàyyi waaye duma ko bàyyi lu ni lu tax mu ni parce que dama ñaanoon yàlla lu may teg ëllëg na ma ko wan fii mu wan ni ma sama soxna si mooy sama natt waaw mu ni nattu nag dañ koy muñ waaw seetal philosophie boobu moo tax prophète yi philosophie bi ñu am ci nattu ak wëli yàlla yi philosophie bi ñu am ci nattu bokkul ak bi nga xam ne rek jullit bi nga xam ni imaanam am na fu mu tolluwul mën na ko am ci natt moo tax ñu ni nag natt bu la dikkalee yow yaa ngi ñaan yaa ngi ñaan yàlla waaw yàlla saafaraal la ko kon yaa ngi ci ñaan beneen bi yaa ngi jéggalu yàlla foo toll ñu ni kon yaa ngi jéggalu ñu ni waaye bu persévérer nag continuer teewul yaa ngi ñaan yaa ngi jéggalu ñu ni mooy nga faje ko muy ñu ni mooy nga faje ko muñ waaw ñu ni muñ boobu nag comme yàlla nee na moom ci muñkat yi la bokk ñu ni ci boobaa sa muñ ba ca la la yàlla di fekki saafaraal la waaw te itam yàlla mën na ko saafara ci ñaari phase phase bi ci jiitu mooy mën na xëy teggi ko ni mu ko defalee yonent yi wala defal ko yenn jullit yi xëy rek teggi ko ci kun fa yakun waaw innama amruhu ija arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun mu soog ko mu neex ko mu xëy ni nekkal mu nekk natt ba dañ beneen bi ñu ni bu xëyul teggi ko mën na dem ba dula ci topp mën na dem ba dula la ci topp te loolu ñuy assisté ca xadaratul ilaahi xam nañ ko nit dina am natt mu dem ba ci dossier ñu wax ni suñ koy toppati buñ ko topp ci côté sàngam waaw léeg-léeg dossier jullit bi dossier jullit bi yàlla dina woyofal la nekk ca dossier ba ba nga xam ne day dem ba ñu wax ni jullit bi kat nan ko topp ci bu julliw nan ko topp ci bu wooru nan ko topp ci bu génnewul azaka nan ko topp ci bu xajiwul màkkate mën ko nañ ko topp ci jukko nàngam ak nàngam waaye ñu gis benn déli bu mag ci dundam ñu ni waaye buñ ko topp ci déli bii waaw ñu ni lu tax ñu koy topp ci yi te duñ ko topp ci déli bii ñu ni ndax déli bi nattoom la waaw te nattu ba ma ngay ma nga ma nga ca booleeg di ñaan yàlla pour mu teggil ko waaye ma nga ca booleeg di jéggalu comme nag ba léegi yàlla nga ko bàyyeeg natt bi waaye buñ ko ci topp kooku bu demee yowmal xiyaam mën na dem la mu gën a tiit la mu gën a tiit ci dundam mu doon natt mu ñëw du ko fekk ci dossier ah. fekk yonent bi ca yërmandeem bu yaatu négocier na ko bu yàgg ca xadaratul ilahi looloo tax nag su fi wax ni nattu bu la dalee ñu ni loolu la waaw benn ba ñu ni na nga ciy jéggalu yàlla ko toll ndax yàlla rek mu mën a jéggal beneen ba ñu ni na ngay ñaan yàlla mu teggil la ko it waaw su dee sa dimension foofu la toll waaw ñu ni beneen ba mujj nag ñu ni mooy na nga muñ waaw ñu ni muñ boobu mooy tax nag yàlla même su la ko teggiloon nga di ko gis ba léegi ni yaa ngi natt ba dootuñu la ca topp te ku yàlla toppatul ci euh, lu lu gënoon a rëy ci dundam kooku amatul la muy inquiété ndax kenn ku nekk yàlla am la mu la mu la muy def waaw c'est un wax naa leen nattu sayidina Aliyu mooy ñàkk te mësuma yëpp fu Aliyu toogee di ñaan ni na ko yàlla génn ci ñàkk may ko Aadama waaw mais mais dimension ma toll noonu waaw te nattoom moo doon ñàkk waaw li Ababacar def ci islam yëpp Umar def ko ci islam Ousmane def ko ci islam su ko Aliyu mënoon loolu lay def ci islam waaw waaye gis na ni ci côté alal yàlla seddu ko ca waaye ci côté njàmbaar yàlla sedd na ko ca waaw mu dem taxawee wàllu njàmbaar bi. wane ci njàmbaar bi ku ñu tudd tey jàmbaaru islam buñ ko jiitalu luñ mu nekk numéro deux waaw seetal loolu te ñàkk moo doon nattoo amit jullit yoo xam ni volonté kese lañu waaye feebar mooy seen natt feebar mooy seen natt parce que nattu bu ko yàlla indi ci doomu aadama bi toujours day nekk loo xam ni doonul lu ko gënal moo tax noonu lañ koy xàmmee noonu la ñuy xàmmee diggante luy nattu ci yow ak li dul nattu ci dañ ne li dul nattu ci yow mooy jukko joo xam ne dafa nekk ci yow mais moo la gënal waaw maanaam defoo dara pour mu dañ waaw loolu kenn du ko tuddee nag jukko ju nekk ci jullit bi jullit bi deful dara pour jukko jooju dañ loolu kenn du ko tuddee nattu waaw la tuddee nattu mooy li nekk ci jullit bi te bés bu xëy bu nelawee ci lay xalaat bu yeewoo ci lay xalaat bu sañoon mu dañ loolu la ñoo tuddee nattu waaw loolu lañoo tuddee nattu natt bu nekkee ci jullit bi mooy li nga xam ni jullit bi fu mu toll mi ngi ñaan mi ngi lu yàlla pour loolu dañ loolu nattoom la waaye jukko ju nekk ci yow te bëggoo mu dañ kay waaw même bu dee bu baaxul bëggoo mu dañ loolu du natt loolu sa coobare la moo tax diggante li yàlla indi ci yow pour nattu la ak li nga xam ni sa coobare bakkan la différence bu tuuti la waaw différence bu tuuti la lu nakk di setantal waaw lu nakk di différencier la diggante la nga xam ne mu ngi ci yow ñu tuddee la jullit waaw waaye bëggoo mu daj nag moo la gënal sax waaw kooku kenn du ko tuddee natt la ñuy tuddee nag mooy loo xam ne guddi ak bëccëg yaa ngi ciy tiit di ci sonn ci sa digganteeg yàlla mu taw a daj yonent bi wax leen ca discours ba ni leen la cay njëriñ ba boobu mooy nee na dangay ngay mu ni dangay ngay fexe di jéggalu yàlla waaw bu dee buy dellu ca bàkkaar la boo xam ni foo toll yaa ngi ko bëgg bàyyi nee na ngay jéggalu yàlla beneen ba it mu ni na ngay ñaan yàlla it mu teggil la mu ni waaye ca jéggalu baag ñaan ba yëpp su teggee kuwul ba léegi nee na nga muñ nag waaye booy muñ it bul bul fàtte mukk di jéggalu yàlla ak di ñaan yàlla mu teggil la nee na loolu boo ko dëkkee balaa ngay génn àdduna yàlla teggil la nee na loolu boo ko dëkkee balaa ngay génn àdduna mu teggil la ko waaye nag mu wax Ababacar moom yonent bi ni ko nag amul benn jullit buy dund yàlla nangul la sa ngëm ba noppi boole la ci muminu na xaqani ba noppi ni doo am nattu nag waaw moo tax ñi nga xam ni dañu ragal yàlla dañ daan dem ba bu ñu jàngatee seen dund gisuñu ci benn nattu dañuy tiit ñoom waaw tiit li leen di tiital mooy dañu wax ni yàlla ki mu bëgg foog mu nattu ko yonent yi ñëw ci jiitu wala yàlla yi ñëw ci jiitu kenn ku ca nekk nag bokkul ak natt sa morom moo tax mën nga ni eh, su ma yàlla nattoo woon nangam de moom baax na fekk na ka mu ko nattoo bu sañoon mu dañ sax waaw mu mel ni nga mel yow te xamoo ko te xamoo ko loolu mooy li loolu mooy li moo tax ñu ni jullit bi bépp chemin boo xam ni daf koy emprunté rek na fexe ba chemin bi ànd xel waaye itam mu xam ndax chemin boobu ci siraatal mustaqim lañ koy delloo lu am solo ndax boo tegul ci njub lu ñëwati rek nga neel waaye boo tegul ci siraatal mustaqim lu ñëwati sa mbugal lu jar di xàmme lu jar di xàmme la boo tegul ci njub lépp lu ñëwati nee nañu nga neel waaye boo teguwul ci njub nee na lu lu ñëwati rek sa musiba la waaw seetal loolu te loolu pour nga jàngat ko il faut nga jàngat ko avec philosophie pour xam ko moo tax ñoom ñëpp nag bi ñuy ñaan ci kanamu yonent bi ñu waxoon ko ni benn ñaan lañu am mooy ñaan yàlla teg nu ci siraatal mustaqim te mooy li mag ñi daan dénkaane ca seen université yi boo daan ñëw di leen tàggu ngay ndaw te loolu jeunesse bi war nañ ci delloo ci waat seen xel ndax mag ñi looloo doon seen yóbbal moo doon seen gànnaay liggéey boo leen mën a wax moom ngay wut projet boo leen mën a wax moom nga am dañ lay wax fexeel ba loo am na ci yàlla njëkk te loo ñàkk yi bu ci yàlla bokk waaw ñoom lañ loolu lañ daan digle boo daan nekk jeune projet boo mënta am boo ñëwee tàggu mag ñi dama am projet sàngam dama bëgg voyager nangam dama amee passeport ñaanal ma ci dama bëgg dem dëkk nàngam ñu ni la loolu yëpp baax na waaye loo am na ci yàlla njëkk waaw ñu ni la loo loo ñàkk yi bu ci yàlla bokk waaw parce que xam nañ am nga dalu xol am nga dalu xel parce que nga xam ne lu mu lu ko yàlla mënta may yàllaa ci jiitu xam nga yàllaa ci jiitu mooy la mooy bu waxtu julli jotee nga julli waaw ni nga xam ne noonu la ko yàlla santaan waaw bu waxtu woor jotee nga woor boo amee alal boo war a génne azaka nga génne boo waree dem def sa xaj màkk nga def boo leen maandu amee ay jukk julli loolu mooy loo am na ca yàlla li loo ñàkk bu ca yàlla bokk mooy buñ ne moom de amula moom mënul dem fii ak moom amul liggéey moom ma nga ne waaye moom daal am na yàlla waaw mooy fexe na ba diggante ak yàlla rafet ba diggantee ak yàlla rafet te wax naa ko léegi ba jël référence ci Alioune li leen xool leen Alioune ku gën a jege yàlla Alioune gën a leer Alioune nga xam ni kanamam ñépp dañu defoon miroir la ndax ni kanamam leer te wax naa leen natt bi mu amoon mooy ñàkk. kon kay nit mën na jege yàlla ba noppi ñàkk loolu du dara du jeex sax ah. nit mën na am alal buñ koy cawe ay milliards yi milliards moo gën a sore te loolu xam nañ ko sax ah. mën na ñàkk dërëm du moo gën a jege yàlla ñëpp ah. nit mën na dajale milliards yi te moo gën a sore yàlla ñëpp waaye nag bu demee ba aada eh, dindi xaqiqa mooy ku am rek alal ñu ni kooku moo am yàlla ku ñàkk ñu ni kooku amul yàlla waaw dañ koy tooñ sax da dégg ñu ni su jege woon yàlla mu ñaan yàlla yàlla may ko alal waaw tey loo jege-jege yàlla boo xëyoon soxla mille francs fenn ñaan ko nga dégg ñu ni avec ça mu ni dafa jege yàlla bu jege yàlla lu tax du ñaan yàlla mille francs te xamuñu loolu du logique gu yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu jàngali jullit ni jullit di ànd ak boromam loolu du logique bi waaw logique bi yonent bi dafa ni Ababacar lenn nee na mooy ragal yàlla nekk ci sa xol wóolu yàlla nekk ci sa xol nee na nga mën a am dalu xel te boo amee dalu xel mooy boo tegoo ci siraatal mustaqim te doo ko wàcc waaw kon nag yàlla nañu yàlla yi ci boobu yoon may ñu ñu dund ci xaqiqa boobu ci zaahir ci baatin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh